service minimum. gis nga gis nga gis nga Maïmouna on n'ira pas moi je je viens pas ici pour faire le procès à gauche à droite parce que sinon dinaa laal ay dossiers yoo xam ne peut-être on va repartir en arrière damay joxe exemple euh, domaine de Prodac Itato yi. ñun ñoo génne ay photo génne ay photo ay vidéo que mu ngi foofu noonu di di yàqu ci naaj bi des semoirs des des des des bacs immenses yoo xam ne dañ ko def des bassins immenses yoo xam ne dañ ko def pour la pisciculture. mais Macoumba Boye a fait un a fait un excellent reportage sur ça. certainement après nous je salue ce travail après yow quand tu as commencé. xam nga tamit ah, presse non dañuy non non attends quand tu as montré ces fekk na presse bi wax na ci bu yàgg. non non non non ah, domaine de Itato désolé nous avons été les premiers domaine Kër Samba Kane gisuguma ku fa dem wax la fa nekk xam nga. et j'en passe et j'en passe et xam nga tey yii nii jàgg naa toog ci euh, euh, euh, publiquement di wax AIBD AIBD bu Sénégal bu ñu ko toppee léegi mu ne mel ni post recrutement politicien ah bon oui te ñëpp a xam booy yi fay dund dem leen ngeen def ay investigation xam dafa nekk teraanga service aviation kan moo nekk ci ginnaaw dem leen ngeen xam waaye mais mais mais mais mais, mais euh, euh, les recrutements abusifs qu'on fait là ak condition nomination directeur général actuel bi après ce qui s'est passé à la poste après ce qui s'est passé dans toutes les entreprises du Sénégal parce que, voilà cest dire parce que politique la lay def jële ko fi mu ne woon indi ko ci un secteur boo xam ne dam ci xam bëriwut li ko bàyyi muy recruter ay kii. bu président mais mais mais c'est quoi le problème de ça dafa am incompatibilité euh, dafa amul euh, je sais pas c'est c'est quoi le problème. dañu ne lu ku ndobin rey sa maam. Macky Sall moo moo mooy nommé defal ndànk bu prés bu dañu ne ku ndobin rey sa maam boo séenee lu ñuul nga daw. c'est-à-dire. mais boo gisee nu post suuxatee euh, yeneen entreprise yëpp suux dem ci cadavre noonu. bu ñu yoree AIBD le directeur général bu Amadou Ba ñëw Thiès mobiliser partout dafay pakk pancartam partout ñu naan il fait du social en recrutant massivement mais loolu sénégalais yi ak euh, ñi ñi moom affaire bi ak ñi leen di càmbaral seeni mbir muy euh, assemblée nationale comme le contre-pouvoir war nañu intéressé wu ci secteur boobu parce que bu demee ba périclite tamit muy yow muy man muy ñeneen ñoo ciy am problème